bu ñu fi tardé opposition moo ñu fi tardé parce que ñëpp question boobu ñu posé non non question yu la may wax def dara parce que waa opposition jubóowuñu parce que normalement pour nekk candidat il faut benn groupe moom lay parrainé pour nga nekk candidat léegi ñoom ñoo tardé ñun tardé wuñu ñoom ñoo dàqaragul si ñoom seen biir ndax groupe bu nekk mun na présenté benn candidat léegi groupe yi nag bu fekkee ne dañu war a présenté candidat te ñenn ñi ñoom seen bi am na yeneen candidat yoo xam

nit mënul nek député nek ministre ben fonction moom maanaam il faut ngeen démission wala président de la République tas li nga xam moy gouvernement bi ñu gën dem di waxtaan. ñaaral bi bo jëlé tey réglementaire assemblée nationale article 51 da fay wax ni député mi ngi tambali sour bi nga xamante conseil constitutionnel joxé na résultat ci le député tambali kon ñom boobu la xamone ni waru ñu mëna ñow ñëw lan moo tax boobu léegi ñu bàyyi leen ci ci gouvernement bi remplacer wul leen benen bi boo jëlee réglementaire assemblée article 86 dafay wax ci bulletin yi bil ñeenti bulletin lu tudd ci règlement bi mais bu ñu amee juróom-benn candidat juróomi candidat mais loolu corps règlement intérieur assemblée nationale prévoirul loolu. loolu conseil constitutionnel moo joxe li nga xam ne mooy avis ci loolu lii mooy blocage bi lii pexe mooy Macky Sall tas gouvernement bi benn ñaareel bi mooy conseil constitutionnel wax ba xam bulletin yi yeneen yi des nan la war a mel parce que wote wuñ ko woon programme wuñ ko woon loolu mooy li nga xam mooy réalité. ñun paré nañ bi ak dañuy wax lu leen neex comme liñ tam wax quoi day comme liñ tam wax rek dañuy wax lu leen neex ñun buñu biñu euh, bi fekk na paré nañ ba paré donc euh, nous on est prêts depuis longtemps mais eux ils ils tombent pas d'accord ils n'ont qu'à trouver une solution ah lu ma ci xam ñom ñoo ne benn bloc lañ bloc bo xamné ba tay ji ni mënuñ d'accord nako population yi laaj ñooñu.

xanaa nit ki balaa muy démissionnaire dafa jël fonction yow yow yow jëloo ko fonction ñu ne la démissionnaire amul fenn da ngay jël fonction ba nga doog a démissionnaire loolu la wax. mais wax ñu léegi bu fekkee ne waa ji dafa démissionné ba ñu nekkaatul ministre lu muy def day perte ñaari yoon mënul nekk quelque fois ñoom nit bu ñu fekkee nekk léegi def nañu ba pare léegi ku mu nga démissionné mais tant que installé wuñu installation installé guñu assemblée bi ba nit di nit di démissionné xanaa balaa ngay démissionné ba pare installé mënuñu leen ñàkk installé ba pare ñu ne démissionné leen loolu amul ñoom daal ñoo paregul ñoom ñoo rek seen ay détails nañ leen ak seen i détails bu ñu pare bu pare ñun ñu ngi leen di xaar wasalaam jërëjëf. accusation opposition ci nguur la dëgg du moins ci majorité parce que dafa mel ni opposition dafa wax ni ñu nekk ministre dans le gouvernement en exercice ñu élire leen député dañu war a démissionner d'abord balaa ñuy siéger bon loolu ñoom xam nañu lu constitution bi di wax tout le monde a rappelé ça depuis dëmb ñu ngi ci nous ñu ngi De échanger rappeler que constitution bu lu mu wax mooy bu nekkoon député bi bu nekk député ba pare ñu nommé comme ministre dafa faut démissionner balaa ñu installer mais su que ne ministre bi la ñu euh, élire député il faut mu xaar installer l'Assemblée nationale Si ñu ko installer l'Assemblée nationale nous mu am huit jours pour tànn c'est mooy situation bu ñu nekk tey sur le plan pratique technicalité démission boobu sax su fekkee tànn na bàyyi euh, assemblée bi nekk ministre technicalité bi mooy da ngay def lettre de démission adressée au président de l'Assemblée nationale et qui une fois reçue, informe immédiatement le président de la République mais fu nous toll nii kan mooy président de l'Assemblée nationale amul donc il est impossible de démissionner xanaa démission verbale té lolu c'est pas valide. ah man na am waye man na tardé man na yex parce que ñun buñ duggé ci salle bi té li nga xam mom lañu ñu may defuñu ko dañuy bloquer séance bi parce que ñun nekkutun wa li ma doon xam ne dama ñëw wan ni Macky Sall moma kidnappone kidnappé woon ma yóbbu ma prison dama séné won ma ñëw ni askan wi din nañ sama sama séné gogo nonu amna liberté ci Assemblée nationale lolu moo tax ma yëkkati won sama ñaar loxo séné bobu non pour wax ne man fi tay ji xanaa taxaway bi ma continué ma continué ko ba askan wi jëlee fi Macky Sall ba troisième mandat bi ñuy rum rumé mu bañ fi am. lolu bokku na ci li tax ma retiré won sax sama candidat parce que man nekkoon naa candidat ci candidat poste président assemblée waaye bi ma demee ba xamni askan li ñuy xaar ci ñun askan yi seen su ñun moy booloo nekk benn ma ni def intérêt askan moy gën sama intérêt c'est la retiré sama candidat bayyi li nga xamanteni moy mooy candidat Lamine Thiam bi président Abdoulaye Wade yor mu jitu ma ne leen yéen waa Yewwi am leen benn candidat bu mënta ñàkk bu ngeen ko amee nag bu ñu demee ba nga xam ne deuxième tour am na su boobaa ñu booloo muy nekk benn waaye lama jàpp mooy benn candidat opposition ma waroon a am depuis démbale maa ngi si liggéey mais man mais man bu ñëpp defoon ni man man bu ñëpp defoon ni man Cheikh Abdou Bara Dolly mi yor mbooloo cinquante 358 voix laa jox coalition yi 7 pour cent Yewwi 20 pour cent Wallu joxe juróom-ñaar député Touba loolu bu ma ko defee. am légitimité ak expérience bu ma nangoo retirer sama candidat intérêt askan wi moo tax ko def. non aj mënul nekk aj mënul nekk dañuy tàmbali xanaa kay dinañ wut solution munuñ munuñ munuñ xaarloo population yi nag moom loolu moom mënul nekk moom parce que jubóowuñ ñuy xaarloo population yi c'est pas possible on pas le faire mun nañ xaar tuuti mais munuñ leen xaarloo nag tey moom dina dañuy def suñu def installation bi incha allah. leen seen bopp yàlla.